Sénégal 4 TV yow yakum. ko ku mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. Vous dee gan nga ci kër gi nag le bouton abonnement bi teg faites fàttee la cloche de notification bi ne ngir bañ a tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay et maintenant bon visionnage mais mais ma wax leen leen na ma wax leen leen na de la diggéer nit mën na koo sikki de supporter yi mun nañ koo sikki def ko def ko maanaam lu nekk ñu ñu kii ko mais ku si indi sa mbër bu boo sa mbër tollook moom bu yeboo la diggéer ëpp ko bu yeboo mu ëpp la diggéer képp ku si arbitre suuf la sa digganteeg la diggéer non doo doo doo ko saasaaxee doo ko saasaaxee mukk te liggéey xalaat yow su ma ko song mu daan ma waaw waaw te boo seetee ñi demee yëpp xoolal xoolal ñu jaxasoog moom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp la dëgg dafay wane bëree loo def mu dindi te bu bu ñëwee dafay def loo def mu dindi te moom bu ñëwee dafay def da accompagner daan la. non mais Cheikh Sarr gis nga diggante Lac de Guiers ak Eumeu Sène ah tey leen ci de def leen ci dànk boo ne carrément Lac de amul lu lu daan Eumeu seen moment ah, wax dëgg yàlla da wax wax far rek waxu far ngay wax attention de. sama wax bu dëmb mooy sama wax bu tey en tout cas ñam ñaari yëpp ku nekk ngi jàpp confiance Eumeu Sène moom dafa jàpp ni carrément daan na combat yi ba pare Lac de dafa jàpp ni carrément combat bi combat la. waaw kay yaa ngi doog a indi mënin Lac de Guiers li ko gaa yi ëppalee gaa yi caay-caay yu bëri boobu lañ ko ëppalee Lac de Guiers même boo ko ñemewul sax boole ko public bi waaw moom dafa yomba boole. public bi parce que moom bu xasee ba kii xool public bi xoolu kenn sa digganteeg moom doo ko jàpp foo xam ne maanaam di nga ko mën a jekku ba du mën a def lenn maanaam boo ko day daw maanaam nga jàpp ko foo xam ne da koy daan moom yow la amal kii yow la yow la amal intérêt mais ñeneen ñi ni amee saay-saay di yëkkati public bi di def maanaam yenn effort yi xam nga tey. ñu gis tey ku doy ni Modou Lo ak ni ko Lac ëppee mu def benn public mu def benn action Lac de dindi maanaam loolu maanaam day rafet day doon loo xam ne maanaam ñëpp dañaan moom moo bëree même bu doon combat bépp benn yoon loo loo def dañ bu bu defoon ni Modou Lo combat bi jeex na fekk Modou Lo loolu la si bëggoon rek wala wala kaneen ak kaneen. xam nga Lac de Guiers ñi tey du ñëw rek taxaw di la seetaan non non xanaa kay eh, dañ koo gën a waane tey dañ koo gën a waane di yëngal public bi mais ñi muy bëreel ñëpp affaire bi di yàgg nii ñëw ñu ne bëri damay daan Lac de de te boo yow am na loo xam ci bëri Lac de ñi mujjee bëreel ñu ne combat bi yàgg si ñoom ñëpp am maanaam bu ñuy dem di ko song so demuñu song pour daan ko dañuy song pour public bi wala ñu yëngal public bi public bi di kii ñu amaale si avantage mais amul kenn ku gëm ni bu ma demee damay jàpp Lac de Guiers daan ko koo gis si ñoom mu àgg Lac de fenn parce que gëmu ko. mais weddiwuma loolu dëgg la loolu moom dëgg la mais Lac de Guiers da nit koo xam ne xam nga tey bu Eumeu seen tay bu ñëwoon di défendre wala muy dundé neen ci lamb ñu né ah ëmbal kat dafa gudut wala mu reëyam dafa dess mo do ñu né ah la ja dess wala maayen lay doxé mais la di da di mbeur ci kaw ci lima wax xam nga ko ci gis-gis mbeur la la dijé da forna am fulay appliquer lo xamné tay ji ni demal na ci lamb ba nga xamné da naka ku muy bëdel mom lay jox fawré ci taxaway état de forme yépp ndax mbeur mom bu ëpp ko doole du yomb pour mo pour mbeur ëpp ko doole du yomb xam nga la manqué la application gëm sa application dama lay application de pour application gënoo bëgg lamb la ci la diguer dara taxaw ni rek li xoromus deug deug deug public bi pourquoi pas mom non public bi. pour de pour comme non non non. parewul loolu waaye moom li muy pare mooy door Eumeu Sène mu wàcc parce que Eumeu day laaw loolu buntu buntu la buntu la ko bëgg a def noonu mu commencé mu mu mu def la tout di door ay coup direct pour laal Eumeu mu daanu wala mu kawoo kom waa ji day laaw mais comme ñëw nii pour wone bëre la xalaatu ko xalaatu ko def. waa làmb de day jeex ci mbir moom buñ ko dugalee ci làmb jeexaayu jeexal ci làmb rek daanaka moom. Euh, kon débat bi conclure na ndax euh, boo xoolee ay ñoom Père Birahim jaay ñoom ñi ñëpp ku ci nekk sëriñ yi la daan ñaanal lépp a ngi fi mais kàttan ak aas day bëre day joué ci bëre waaye la diggeer la diggeer dafa jër sa xeexe de man de wallaahi ëmma même boo entraîné wul ba jouru combat ba pour man la diggeer du appliqué luy daana mën seen ëmma nag mën naa ñëw réer ci biir bëreem di ma dóor wala muy appliqué wala muy bëree sa waaye tayle ko soit mu def ak son mu moom wala mu xeex mu nax ko ci biir xeex bi mais la de Guiers du appliqué Lac de man ci moom Modou loo ak Boy Niang laa deñe ci Lac de Guiers wax ba Sénégal foog ne bu arbitre soufflé mu ray la man Lac de Guiers dama ko boolewul sax ci nag comme bàyyee ko xel ci làmbam nu mu baax na. Lac de ñi mu bëreel ñëpp ñii dafa dajeeg ñoom dañoo nangoo bëri mu daan leen comme Yékini ni mu amee fulla ñëw jéem a bëre Papa am fulla yi ñëw jéem a bëre ah Modou ko Boy amu ko waaw. te biñ demee boo ñaa bi mu demee ba si fin bi ay mbokkam téego ñu dem ba si fin bi mu dëgër bopp dem di bëre lat da koo daan foofu fin bi boo gisee dafa lat bëre nga xam ne la la boo ñaa daj la yeneen mbër yi bañ a daj la moo tax boo ñëwee doo ko ramassé daan ko ban ful ëmb seen fulla gim gim amoon mun na ko amaat ñëw jàpp ko daan ko la moo tax ñeneen ñi des amuñu fulla gi ëmb seen am ñu ne mu dem am fitu dem këf tànku la de guerre yu jëm koo daan. Euh, yow César ëmma ëmma da nga koo desee bëgg rek waaye ëmma wax dëgg yàlla euh, yaram gëj naa wane si làmb yi loo xam ne kii na combat mook ëmma si mook Modou Lo bu njëkk ba maanaam forme bu rafet la indi rek waaye boo gisee lam bëre nga xam ne kii maanaam li ni forme mu rafetee si bëtu nit ñi doole ja nekk fa waaw moom combat mi yàgg yëpp tey dangay ngay seet xam nga ni Eumeu Sène ah miy jàpp tànk miy jàpp tànk ba noppi daanaka di ko jàpp di di di ko tegaat xam nga ni amul doole waaw ñu ay tànk jee tànk yooyu def fusée rek yu kenn xamul waaw ba muy bëree maanaam moom lim lim ko teg noonu naan ay kii demewul noonu de victoire ak yi doole ju bëri bokkul de. victoire ak doole ju bëri am mooy doole ji ki gën a de formam formam moo rafet rek nag macha allah xam nga César boo gisee jël bi Eumeu seen daan la de Guiers nga xam ne la de Guiers mun na koo daan Eumeu bi jëlee tànku Lac de Guiers Lac de dafa bës tànku dafa bës boppu Eumeu Sène c'est nga combat boobu njaax la te ni mu bësee bopp bi noonu mi munoon naa yàlla munoon naa def boppu Eumeu seen jiitu Eumeu daf Lac de Guiers dafa mën a bëri de noo ko songee am na ni muy génnee si yow gis nga lak mbaa xam nga ne lak li muy préparé mooy li Modou Lo defoon homogène loolu lay préparé noonu de door homogène mu daanu loolu kese lay lay préparé loolu kese rek lay préparé xam nga di wër buntu boo xam ne dina mën a door homogène mu daanu comme ni ko Modou Lo defoon loolu kese lay préparé ci combat bi lan moo ko tax mu koy préparé parce que xam na ne homo day laaw comme homo day laaw booy door ay coup direct booy door ay coup direct mën nga ko jaaxal ci côté xeex mën nga ko door mu wàcc xam nga léegi loolu lay loolu lay essayer quoi moom lakk loolu lay jéem noonu door Eumeu seen mu wàcc parce que Eumeu day laaw waaye waaye baax na rek waaye baax na rek. voilà gis nga ni nga xamee ne nekkatul Balla Gaye boobu noonu ngay xamee ne Eumeu Sène nekkatul Eumeu Sène 97. actuellement nii ñu ngi si deux mille vingt et un plus de vingt quatre ans nga def ko carrière ah. nga yaakaar ne la nga yoroon ba ngay doon gone ba léegi moom nga yor Ouzin maam la booy Ouzin du daan la dëgër. non am moom gars yi am moom moom am moom bu ko lak daane moom mën naa xool benn boy rek mu may ko sens bàyyi bàyyi bëre waaw bu ko lak daane. bu ko Lac ne moom mën na xool benn mën na mën na may Sa Thiès loxo rek xam nga après jaar foofu bàyyi bu ree waaw waaw. Ibrahima naka am daa xarañ de am même bu amul kàttan am na caay-caay ku weddi laajal baabooy bi muy bi muy bi muy jubilé ni muy jubilé la dëgër moom daa jër xeex xeexle la dëgër du appliquer du pousse du passe la dëgër day gis sax. action boo xam ne da koy wóote bu ko exploité bu même bu dee même bu dee daanu même bu dee utiliser dooleem bu utiliser xelam bu utiliser dooleem sax génn ci mais day taxaw di xaar Lac de Guiers moom daal neexut a xeexee man Lac de Guiers wax dëgg si yàlla jàppee ma ko ci comme gars yi nii mu jaral ma di commentaire yooyu noonu.